lii nag li taxoon ñoom initiative bi di ko def chaque année def na ren mooy cinquième édition bi parce que 2017 lañ ko commencé def dañu demoon rencontré banque de sang bu hôpital Matlaboul Fawzeyni bi bi ñu demee ñu laaj leen hôpital bi ban jafe-jafe la ñam ñu xamal la ñu ne bu waxtu màggalu Tuubaa ñëwee seen banque de sang bi dafay am problème mu deret ba nañu dem ba Kër Mbay Fall Dakar di wër yeneen région yi ngir renforcer seen banque de sang bi biñ ñu ko waxee nag ci la Madaka concerté wu dëkk bu toll ne économique population defe naa ne jaaduwul suñu banque de sang bi di génn di dem di wutu ci deret fenn parce que population bi mata na ko depuis 2017 ba léegi nag ci la Madaka di def campagne de sensibilisation yàllaa ñuy suturaal at mu nekk danañ def ñaari yoon ba am na ay association yoo xamante ne si ne ñu ngi roy ci jëf ji Madakaaw di def di ko jàppale banque de sang bu hôpital Matlaboul moo ne woon bi moo tax chaque année ñu nit bu ñu duggee ci wàllu safar gi Madaka woo ay naataangam wo ay am di jàmmam ay voleuram woo membre Madaka wi nam yëpp bu ko defee ñu dajee ñu jàpp benn bis ñu jàppale suñu banque de sang bi ngir renforcer leen seen banque de sang Matlaboul Fawzeyni li ñu defagun comme bilan bi ma laajee soxna si léegi nee nañ am na 70 te it ñu ngi continuer dem te ku ne xam na ne Matlaboul Fawzeyni seen banque de sang bi réussite totale mooy 73 poches kon yàlla mën nañoo suturaal ne depuis ñu di ko def ba léegi mosuñu am moyen de 100 poches kon ren jii ñu ngi séntu ne ne nañ daan am incha allahu rabi dinañ ko amaat parce que nombre de donneurs yi mu ngi yokku te am nañ ñoo xamante ne leen ñoo xam ne ay lañ ñi nekkoon suñu yaay dañu doon taal mais pare nañ ba ñi nga war a ñëw yoo xam ne tey dañu nekkoon doon def ay a dikk ngir ñuy fexe ba naka la ñuy ba nombre de donneur bi daanam am xam ne daanañ am ci cent poches ren ñu amaat lu toll noonu ndax Madakaw ku ne xam na ne depuis ñu di ko def ba léegi nombre de donneur bi da yokku te loolu mooy mbirum sëriñ bi ndax lépp lim laal rek mooy sëriñ Touba parce que dañu woote joxe deret joxe sa addee kon ñu ngi yaakaar ne incha allahu rabi bala ñoo àgg ci deux heures trois heures bu soobee yàlla dinañ am cent personnes yi nga xam ne moom a am doo su ci lu nit na nit xam ne accident yi bari na tey ci lu confirmer loolu rek hôpital Matlaboul Fawzeyni depuis ñu ubbi ko ba léegi ku ne xam na ne ëpp na dix an tey bu ñu demee bañ na hôpital bi ne war nañ fi def benn centre de dialyse lan moo lan mooy dialyse mooy ñi nga xamante ne si ne dañu soxla deret tey ku ne gis na jigéen ñu wérut ñi gis nañ accident yi ni mu baree te defe naa ne nit bu manqué deret duñ ko sol lu deret doomu aadama loolu esprit boobu nag bépp doomu aadama bu nekk war nga ko mën a trois mois yu ne waroo xaar sax ñuy organiser journée don de sang la war a def mooy nga dem ci sa banque de sang bi la gën a jege nga dem joxe fa sa deret yàlla tax parce que defe naa ne nit mënta def ci kaw suuf lu gën a màgg ak jaamu yàlla jël sa deret ji joxe ko te yàlla rek tax ñun nag depuis ñu gis loolu xam ne suñu banque de sang bi comme na leen ko Serigne Saliou waxee parce que bi ñu koy doogu ubbi bi ñu demee wax ko Serigne Saliou Serigne Saliou dana sàllaaw de incha allahu rabbi bis dana mas a ñëw ñuy wut see fii deret di ko yóbbu ci yeneen régions yi waaye duut leen génn di wut jee fenn te loola mel ne mi ngi loola nag la Madakaw jël tànkam teg ko ca ngir association yi nga xamante ne si ne ñu ngi ci biir dëkk bi ak groupement des femmes yi nga xamante ne si ne ñu ngi fi ak euh, yenn kuréel yi mag yi fi nekk di wootee ci loo xamante ni si ne day set setal dëkk bi ak ngir taxaw dëkk bi ci wàllu développement loolu ñooñu defe naa ne bu ñu dee repéré ci du xool ci lu mel ne lii di def dinañ ko mën a copier ba ñoom it ñuy organiser ay journée don sang ndax defe naa ne Madakaw bii mooy cinquième édition ndax 2017 lañ ko commencé woon def nañ ko 2018 def ko 2019 def ko 2000 ba bi ñu nekk te incha allahu rabbi fii ñu ngi continuer di dund bu soobee yàlla saa yu ñu àggatee ci waxtu bi danañ leen ko defal. édition bi la ñu jiital ci suñu lépp ndax képp ku mën a doon jàpp nañ ne boo jógee ngir di màggal si rek ganuk Serigne Touba nga Madakaw nag mouvement la boo xam ne ku nekk war nga cee mën a royee ñun li ñu jiital ci suñu mouvement bii di Madakaw mooy développement département de Mbacké ñun Sonko président Macky Sall ñëpp ci yem Madakaw ku ne xam ne ne mouvement la boo xam ne du xas sax opposant parce que yarawuñu noonu ndax Serigne Touba la ñu jàng moom mu jàngal ñu yonent bi jàngal ñu suñu borom jàngal ñu téereb yàlla bi bind bàyyi fi ñu xam lan mooy àqi doomu aadama loolu bañ na ko ba Madakaw bokk na ci li mu sàmmonteeg ay ñañuy politique ba ñun suñu politique du ñu xas sax suñu moroomu opposant sàkkantewoo maa koo xam ne mooy président la république na ko fi Cheikh Mahamadal Fadal defe woon ci Senghor Serigne Abdoulaye defe woon ko fi ci Abdou Diouf Serigne Salif Mbacke ànd woon ko ak Ablaye Wade la ko Serigne Mountakha mii di ànd ak président de la république Macky Sall président de la république Macky Sall nag gan la goo xam ne ganuk Serigne Touba la ñoo ngi koy xaar yàlla na yegg si ak dalal ko ak jàmm ba mu delluwaat ñeneen ñi nga xamante ne si nit ñi ngi ci gannaam tey ñëwit ñu sentoo leen noonu bu ndikkee ñu dalal leen ci jàmm waaw partenaires it ñi ngi sant bu baax monsieur le maire te du ko ci jiital Abdoulahad Ka maire de la commune de Touba ndax kat wax dëgg yàlla am gis nañ taxawaay bi nga xam ne am na ko ci Madakaw am ko ci doore sant bi ndax euh, depuis ñu créé ko di ko def en 2017 ba léegi bi mooy cinquième édition bi at mu nekk Madaka maire li mu ñuy wax mooy defar leen budget bi ngeen andi ko dinaa ko financé ndax lii képp ku koy def maire bi nga koy defal ku koy def sëriñ bi nga defal te loolu ñu waxoon mosu cee jóg te maire mënoon na koy def ba pare yem ci bis bi kat mu ne dama yebal ndaw lu ma fa teewal waaye depuis mu koy def ba pare dana yëkkati alalam joxe ci tayit lu mu xat xat xat xat dana ñëw ànd kook ñun ba bis bu jeex kon defe naa ne Madaka umut ak fayam Serigne Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseil ñu ngi koy sant bu baax gis nañ taxawaaye moom it ci mouvement Madakaaw di sant bu baax a baax it Matar Diop ndax bàyyi na yitteem yëpp moom it dikk également jàpp ci bu baax a baax a baax moom it ñu ngi koy sant madame Mbacke gis ngeen ko léegi ñëw na fi directrice bu SODAV suñu yaay Aïda Gaye yabal na fi délégation bu mag ñu ngi sant Kocher ñëw nañ waa 100 pour cent Abdou Lahad Ka ñëpp ñëw nañ ci kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax